yëpp maa ngi dégg mu naan daif dañ koo jam daif dañ koo jam ma ne ak ah, kii dafa naan sàngara wala lu ko dal te daanaka na xadis yi ala jabdu daan waxtaane moom lay tànn naan dañ koo jam suñu mag ñi nag waaw xam nga ñoom sax jéggal nañ leen waaye xale yi nañ jàngi mu ne doomeraam ji féerut sax ijji te xamul ne fii la ñëw yelwaan moom ba bu mu dutoon man ñu nangam ko ngeen baal ma parce que dafa am yu may métti trop nag mag ñi duñ suñ moroom xadis bi même bu dee daif rafet na dañ ko fi bàyyi wax bu rafet dañ koy dàq wala dañ koy fiy bàyyi Oustaz Malick dañ ko fi bàyyi ah man de dama leen di laaj wax bu rafet dañ ko fi bàyyi wala dañ ko fiy jëlee boo ko fi jëlee loo fiy indi wax bu ñaaw xadis bi même bu dee daif wala ñu jàmm ko mais wax bi rafet na bàyyi ko fi nit ñi jëriñoo ko yegg ci beneen képp ko ne xadis bi wér na yaa ngi gas yonent bi ne ku ma sosal ku ma sosal yaa ngi teg sa ni banque ca siis ca safara ëllëg yowmal qiyaam sos la yonent bi wax amul benn xadiis bu nit ñemee kitaabu ne wér na moo tax xadis boo jàng danga naan aw kamaa xaal <laughs> dañ dañ dafa bokk ci charte yi sax xadis boo jàng be daaneel ne aw kamaa xaal ndax na ko yónnent bi waxee woon xamoo ko te wax buy toxu rek tey jii bu ma la woon ne la oustaz Camara kaay demal ma ci ngénte la soo demee nga ne leen xale bii ku baax la maa ko yar maa ko toppatoo ba mu toll fii wax wax la ma lay wax yépp boo demee doo ko mënatee wax ni ma ko waxee dëgg la wala du dëgg na ma la ko waxee bi ma lay yeb pour nga dem boo demee doo ko mën a toppaatee araf par araf ci ni ma la ko waxee foog nga indi ci sa jekk-jekkali bopp ak sa mekk-mekkalu bopp du dëkk xadis na gannaaw ba ko yonent bi di wax ay mbooloo su tuutee ko fekkee woon ñu di ko toxal di ko bind di ko toxal di ko bind nañ koy bindee day uteeg ni ko yonent bi waxee woon moo tax dañ bëgg boo waxee xadiis ba mu jeex nga ne aw kamaa xaal wala boog na ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam bu dee nag amul aw kamaa ndax boo ñëwee sax ci xul yi xul tekkiwul waxal wax naa ko fi ba tàyyi xul tekkiwul waxal déedéet xul neel lay firi nit ñi déggul wolof xul boo gis ci alxuraan moo tax xadafi rey gi ñu rey mu ñaaw lool nag bettuma woon maa ngi doon séenu sax bu ko gën a métti yàlla xam na ko nii ñu ko def nii maa ngi doon séenu ñu def ko bu ko gën a métti waa yàlla suturaal na ko niñ ko reyee metti na waaye baax na ci moom de hmm. Hmm, farata nag niñ ko reyee nii farata la hmm. nit ñi dañ dul xam cosaan wala dañuy gaaw a fàtte livre vert du moo ko bindoon nguur day bewloo nit boo nekkee ci pouvoir rek dangay ngay bew moo bindoon livre vert moom Kadhafi ci année quatre-vingt yi maa ngi koy fàttaliku boobu maa ngi Banjul di jàng boobu maa ngi maa ngi secondary technical school 81 boobu maa ngi Crab Island ci la fa téere yooyu duggoon ni moom ba mu fa demee dañ président kii la fa fekkoon ni ñu koy waxee ti déedéet Uldu Taaya déedéet keneen ka Uldada Muxtaar Uldada la fa fekkoon président Muxtaar dada moom la fa fekkoon moom ba téere yi yegsee foofu dafa ne bato bi yëpp téere yi mu indi nañ ko soobaat ci géej gi benn génn mu ne ndax xaraam na livre boobu dugg biir Mauritanie man ba la ma ca amoon ba di ko liir ca laa ne kii yàlla àddina lu mu yàgg-yàgg dina ko nàkk fii xaw ma nag fële waaye fii moom dina ko nàkk ndax dafa ne xol yi ci alquran yëpp pour pour gàttal dafa ne xol yi ci alquran yëpp dañ ko war a dindi mm-hmm, mm-hmm. noonu la ko waxee woon moom Xadafi xam nga loolu fa la mbew te yem hmm. mu ne ndax xol yi yàlla yonent bi la doon waxal te yonent bi nekkatu fi kon nañ dindi xol yi maanaam xul yaa ayyuhal kaafiruuna nañ dindi xul bi ne kaafiruuna qul a'uuzu bi rabbil falaq ñu ne ne mu ne nañ dindi xul bi def falaq hmm. maanaam fu yàlla ne xul ci alxuraan rek nañ ko dindi ma ne ko kon ne li ñuy dindi dana bari ma ne ko bi ci des ñàkk jàngam moo tax xamut dara nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizun fu mu koy def inna nahnu nazalna zikra mm-hmm. wa inna lahu la xaafizun yàlla ne maa wàccee alquran ji maa koy wattu mm-hmm. ba kenn du ci yokk araf kenn du ci wàññi araf moom mu ne nañ dindi ma ne bismillah 81 ba biñ koy rey ñaata at la mm-hmm. hmm? kañ lañ ko rey mille lan calculer leen ko waaw fi mu ko waxee ak fi ñu ko reyee def na vingt et quelques années wala wala trente sax ah trent deux ans la def xam nga lu mu toll ci yàlla matul sax seconde ci yàlla trente deux ans yooyu matul sax seconde ci yàlla da ngay calculer inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ay seconde la ay cerse la ca yàlla dangay ngay dangay da ngay calculer inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudun yàlla nee na sama benn bés sama 24 heures mooy seen 1000 ans kon 34 ans yi ñaata la war a 32 ans yi ñaata la war a doon ay seconde yu tuuti la moo tax yàlla dara yàkkamtiwu ko yàlla daraa ko sofut na bàyyi xel ci yëpp rek waaw nañ bàyyi xel ci yëpp nañ bàyyi xel ci yëpp ndax àddina moom day jeex inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudun kon boo doon calculer junni at ñaata siècle la hmm? dix siècle benn siècle rek ñi ko fekkee bariwul kon yàlla looloo tax mu am jot yow fi ngay màggatee di tëleeg di feebar ak di wér moom dara dalu ko moom yàlla fi ngay jaaxlee di am problème moom dara dalu ko fi ngay dee foofu moom dundam mu ngay sax dàkk kon yàlla dara ñoro dara safu ko yàkkamtiwut dara it parce que xam na ne dara du ko rëcc ku dara dul rëcc jaroo yàkkamti jar moo tax yàlla yàkkamtiwut waaw boobu laa ne xadafi mii du dem ci jàmm mukk xul mooy tekki neel su ma ne alaaji malik Diop neel mbooloo mi alaaji Malick jóob dafa naan Chérif Ibrahima nee na ne tekk di ma déglu maa ngi leen di nuyu mu ne mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di ziyaara nee mu ngi leen di ziyaara di leen sant nee na mu ngi leen di sant li may wax rek lay wax loolooy xul yàlla dafa naan yonent bi neel yonent bi ne yàlla nee na ne tekk déglu ko allahu mu ne moom yàlla nee na assamadu moo wéeruwul ci kenn te ñépp daw jëm ci ci moom lam yalit yàlla nee na jurul kenn walam yuulat te kenn juru ko yàlla nee walam moom moomu hmm. yakku nekkul lahu di ko ñeel ku fa an associé hmm. associé wu la kenn waaw loolu wax yonent bi a ngi ci biir <laughs> waxam newu ci waxu yàlla la nettali moo tax xul neel lay firi hmm. waaw xadis yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla rafet na dañ ko fi bàyyi rek alfitnatu naaima la ana allahu man ayqadaha bu daifee it kon boog ñu jël wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa boobu moom kenn jamu ko <laughs> ah ku ko jam dem safara wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaassa yàlla ne na ngeen ragal fitna ndax ay du yem ci bopp borom